kon nag baax na. waaw mais Amadou. Mhm. d'ailleurs dañuy rester ci ci ci ci ci. affaire ci affaire presse. non non ah. dama bëgg xam rek lan moo ci lan moo ci sa sa sa sa xalaat. alors euh, mooy cette euh, cette amnistie fiscale de quarante milliards bi nga xam ne Macky Sall def ko defaloon presse bi. Mhm. mu recevoir woon je pense que c'était avant les élections. waaw. Euh, def defal ñu une annonce importante on était on était vraiment content mais on apprend que euh, les actes de formalisation n'ont pas été faits et que par contre le service des impôts et des domaines dafa nekk dans l'optique de recouvrer euh, cette cette cette cette cette dette là. Mm-hmm. euh, d'abord ce <coughs> ce ce, ce premier, euh, ce première réaction. Euh, nan nga gisee mbir moomu. bii mooy ñaateelu amnistie yu leen Macky Sall defal à la presse. c' est la non non c' est la seule. c' est la seule. waay beneen régime Ablaye Wade defoon na ko moo ko defoon en 2007. voilà euh, la Macky Sall mu ngi koy doog a def. le président Bassirou Diomaye Faye bi mu génnee. Mm-hmm. je pense que on li avait posé cette question sur l' amnistie. il a expliqué que ni il n' était pas d' accord avec amnistie bi nga xam ne dañ koy defal la près parce que mooy ñoo xamante ni ay entreprises lañ parce que là c'est pas la presse seulement comme service public à l'information ce sont des entreprises yoo xamante ni dañoo fayul seeni impôts président xëy ni baal na dañoo fayul seen dañoo am dette fiscale dañoo am dette fiscale. am dette fiscale ça ne veut pas dire que fayuloo say impôt waaw dette fiscale moom sa ah. ça dérive ah. quand même d'un non ah. paiement d'un impôt à une date boo xam ne d'un impôt dû d'un impôt dû à une date bu ñu la fixé woon mhm. à partir de là nga koy wooye impayé ou dette fiscale tudde ko la l'essentiel le fait est que noonu la maintenant mu ne la il faut pas ñu def ko un mode boo xamante ni à chaque fois que la presse a des difficultés levier boobu la ñuy utiliser est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à un nouveau modèle économique et je pense que loolu di ngeen ci ànd ba nga xam ni le la presse dafay am ay ressource suffisante parce que yow leer na la yow mi nekk chef d'entreprise que le modèle en cours suñ ko continuer peut-être dans cinq ans il y plus de presse. le modèle doit être réformé. ah non mais c'est pas réformé refondé dans de avec de nouvelles bases loolu je pense que yow d'accord nga ci même suñu leen dindi loon amnistie bi. dans cinq ans si on laisse le même modèle waxuma la amnistie mais vous allez parce que li da nga xam ni moo daan euh, entretenir la presse canevas yooyu yëpp c'est des yoo xamante ni c'est pas amul cohérence moom mu ne la na ñu jël la presse dans son ensemble ba tudd def boo beaucoup insister sur les reporters ak les contrats précaires yi nga xamante ni moom moo nekk dans le secteur. loolu moo gën a tuuti ci système. ci ci suñu secteur. seen secteur mu ne nañ leen ut un nouveau modèle. nouveau modèle bi ça passe par des réformes en profondeur avec kan avec les acteurs de la presse ba nga xamante ni pouvoir médiatique pour mu indépendant il faut deux choses mu mu mu indépendant du pouvoir économique mu indépendant des acteurs politiques et des subventions plus ou moins déguisées yu ñu leen mën a defal ñu y a pas de subvention déguisée rek ñu asseoir ñaata média nga fiy gis yoo xamante nee naa la du matin au soir ils ne font que la promotion d'un homme politique mais y a ma ne moi je parle de médias sérieux je parle non y a pas de subvention y a pas de sub non l'essentiel dans le secteur y a pas de subvention déguisée oui ma déglul li am solo sincèrement laa lay wax et c'est un problème très très important parce que il ne peut y avoir de démocratie sans une presse libre et indépendante il ne peut y avoir de presse libre et indépendante sans ñu am ay moyens financiers de leur politique loolu indépendamment des pressions yu gouvernement mën a exercer ci ñoom moo tax ma ni la c'est ce modèle là l'amnistie n'est pas une solution. mais en loolu dañ koy wax mu leer xam nga xam nga euh, moom Bassirou Diomaye daf ñu daf ñu fekk si ci loolu. waaw dafa am beaucoup d'études beaucoup de document yoo xam ne euh, amal nañu ko pour réformer refonde Euh, le, le, le système économique pour une pour des entreprises de presse viables mhm. euh, état ak ñi nga xam ne ñoom ñooy démembrement maam yi nga xam ne ñoom ñoo nekk en contact avec les médias mbir mi fa la tardé dañ ne ma joxe rek actuellement amoon na benn euh, réflexion sur la sur l'organisation de l'assiette publicitaire waaw ñu waxoon ne comme RTS dafay bénéficier de mm. subvention mm-hmm. euh, les médias publics nañ leen ci nañ leen génne wala ah. à partir d'une certaine heure mm-hmm. dootuñu capter benn publicité bi mm-hmm. mais puisque souvent ñii di gérer médias publics yi ce sont des politique arrimés euh, à, au, au pouvoir dañuy am dañuy affaire bi dafay dafay bloqué c'est-à-dire solution yi ñun d'accord nañu ci bëgg nañu ko mais dañu dul woon am volonté gouvernement ah, pour matérialiser ko mhm. mais en attendant cela bu président de la République Macky Sall mhm. defee càmbar bi avec ses collaborateur ba jàpp ne pour génne ñu ci situation bi ñu nekk il faut que mu effacer ñu dette fiscale bi mhm. la parole présidentielle publique quand même mu wax ko euh, ñu ñu ñu ñu ñu dégg ko mu dem di inaugurer les tour de la RTS dans son discours il dit que il a subi la pression de Racine Ba il il a signé le décret le le le, le matin l'état est une continuité pourquoi le président Bassirou Diomaye bu ñëwee du du du matériel du continuer la matérialisation de cette de cette promesse là pourquoi ngeen bëgg ci revenir daf non est-ce que da ngaa dégg le ministre communiqué ci l'essentiel le fait est président de la république signéwul décret loolu am na wala amul signéwul décret bi donc booy wax continuité day fekk acte bi ñu matérialiser ko acte amul Euh, te bëgguma polémiquer sur pourquoi mu defoon cette amnistie ndax mën nañ koo mën nañ cee épiloguer sur beaucoup de choses ni peut-être y avait des rallants politiciens et cetera yooyu laay bañ parce que l'affaire est trop sérieuse pour que ñu koy évoquer sous sous cet aspect là nee naa la li gën a am solo encore une fois. mais si pourquoi pourquoi le pourquoi le régime hmm? actuel. du poursuivre la matérialisation. Euh, actuel bi fekk de cet effacement de la dette actuel bi boo ko boo bëggee jël loolu nga limité ko ci yow yow sax promesse nga am promesse képp nga am gis nga ni régime actuel dernier kii yu mandat lan moo tax def ko woon en début en en 2023 pourquoi mu bàyyi ba 2024 à quelques mois de l' élection mu def ko non dama lay expliquer rek. ni la Sall nekkatu fi. nekkatu fi moo tax pourquoi le régime actuel veut revenir sur cela au risque au risque d'affaiblir <clears throat> un secteur important. mani loolu du loolu mooy affaiblir le secteur encore une fois bu dee loolu la toutes les entreprises en difficulté yuy recruter ci Sénégal nañ leen teg bu ñu leen tegee tu vas lan mooy différence entre yow ak booku d'industrie booku de. PME PMI yoo xamante ni. xam nga am nañ ay problème de de PMA kii xam nga tey y des entreprises minières le débat s'est posé ah. et d'ailleurs le nouveau régime en place dafa attaqué wu à la question euh, yuy bénéficier de de bonus fiscaux. waaw euh, et c'est normal ñoom ils font du profit ils investissent beaucoup mais ils font du profit xam nga lan mooy différence bi entre ñun ak les autres entreprises. Hmm. Amadou bi Ousmane Sonko di dem campagne électorale 2019. waaw dañ ko accompagner fayul un franc bi Bassirou Diomaye Faye di dem campagne 2024. <coughs> dañu ko accompagner teg léppam invité ay nitam déboursé wu leen un franc. comment ça. déboursé wu leen un franc. dafa am tarification. non non xaaral rek ma wax la. laaju ñu leen dix franc xam nga lu tax ñu ko xam nga tax laaju ñu leen dix franc. Hmm. parce que bu Sénégal tollee ci yenn événement yi ñun nous sommes Attendez. quelque part des délégataires de service public wow. on a le droit et l'obligation d'informer le, le, le, pour sûr. pour couvrir pour couvrir ces campagnes là au lieu que ñun ñu dem gagner ci xaalis dañuy génne trente millions investir jënd matériel jënd ay caméra jënd banc de montage jox suñu équipe yi xaalis ak yeneen ak yeneen réformer waat suñu plateau yi defar Voilà la différence. Nous, on sort de l'argent, on investit pour informer les Sénégalais et il n'y a pas toujours un, un, un, retour d'investissement. C'est ça la différence entre une entreprise de presse et une entreprise dans l'agroalimentaire, dans la téléphonie ou dans, les, dans, dans, dans le domaine le, Le cœur de métier, c'est l'information. C'est l'information. Je pense que pour bâtir un, ben projet euh, euh, média, xam nga ni dem di fayeeku pour couvrir des événements. campagne électorale on aurait pu. non du question on aurait pu dans d'autres pays la campagne. non non non non elle est dans d'autres pays quand vous n'avez pas les moyens. vous n'avez pas accès aux médias les producteurs d'information ñi tax am looy présenter ñuy produire information bi xanaa dooni ma le modèle économique foofu ngeen ko basé. non non mais sérieusement je parle là sérieusement basé wu loo mënoo justifier. le fait que par exemple amnistie fiscale bi dafa war a parce que da ngeen di accompagner les hommes politiques mais kooku. ça fait non non non non non non Amadou j'ai jamais dit de comprendre alors ah. j'ai jamais dit ça da ne lan mooy différence bi entre l'entreprise de presse ma ne la. non wax xam naa différence entreprise de presse ak entreprise de mine ak yeneen. mais j'essaie d'expliquer que ni le fondement de cette amnistie fiscale là bu dee Macky Sall président Macky Sall da leen ko baal nee naa la déjà xam nga ba nga nee état continuité la nga waroon accepter service des impôts ñëw présenter la facture. mais xam nga. parce que continuité mooy quelque chose qui n'est pas dans l'ordonnancement juridique nekku ci le décret n'existe pas c'est un décret qui n'existe pas parole présidentielle ba ci conseil constitutionnel nee na bu ñu ko matérialisé wul par un acte amul valeur léegi yow nga bëgg à partir d'une simple promesse faite par le président yéen kay da ko war a woo lu kon lu tax tu as créé une patate chaude. xam nga lu ma jaar te respecté woo